ak képp ku xëy si ci biir kër ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la leen ñaanal jàmm ak yokkute jàmm ak yokkute itam ñu ngi koy ñaanal sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy di leen nemmeeku di leen ziyaara waaye itam di sàkku ci ñoom ñaan macha allah di ñaanal ñi nga xam ne itam ñooy sunu ay xalifa généraux ñoo ngi leen di bëgg ñu ngi leen di sopp bu baax a baax di leen nuyu di leen ziyaar bëgg leen lool macha allah di ñaan yàlla mi dara tawul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla yàggal seen taxawaay ci kanamu njaboot gi ndax dana ci am solo lool lool lool ñu bàyyi xel itam ñi nga xam ne eh, jamono bi ñu toogee fii di def émission wareef ñoom yàlla dafa dogal ñu nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ñu ngi leen di massalu coono toogaay yooyu. ñoo ngi leen di wax yal na nu gaaw tane ba dellu seen ay activité di leen wax massa massa coono àdduna nag nii la faw faaw saa saay nga yeewu yaram fasu saa yi nga yeewu wax dëgg yàlla doo kontaan wala nga jaaxle ànd ak lu mënti am yal na yàlla fajal ñu lépp loo xam ne rek bu dikkee macha allah dana nu yëngal yal nañ ko yàlla fajal incha allah taala ngeen wér kenn bañ a feebar incha allah taala ñu bàyyi xel itam ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla bërëb yooyu yàlla na doon bërëbu yokkute ci ñoom naka wala fay waxee yàlla na doon càngaay ci ñoom incha allahu taala te bu ñu fa jugee itam lépp loo xam ne rek teg nañ ci loxo yàlla na ko suñu borom barkeel ñu ngee bàyyi xel ñi nga xam ne dañu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey wax dëgg yàlla sore nañ ñu jege nañ ñu waaye ñu ngee ñaan yàlla fi ñu tëdd yàlla na tëraay bi sedd guy guy guy guy ndax bu ñuy wax loolu xel dafay dem ci suñu ay kilifa bopp xel dafay dem ci suñuy soppee suñuy wasila suñuy sëriñ yàlla na yàlla yërëm leen yokk leen leer macha allah yàggul ñu fi ñun itam ñuy def lu baax macha allah ah bàyyi xel itam ki nga xam ne mës ta seetaan wareef te tey bi mu xëyee suba teel dafa jàkkaarloog ñun kookee itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax macha allah di ziar soxna mami Linguère di ka wax ne waa Njàmbur waa Njàmbur ñu Njàmbur Njàmbur yi ñu ngi lay nuyu. ah fay naa leen. ah waa Ndiassane itam nuyu nañ la. wallaay ndeysaan maa ngi leen di fay sunu maam ju baax. jooju macha wallaay wallaay ah, du nu fàtte ziyaara waa Touba waa Tiwaawoon. wax dëgg yàlla bawunu kenn bawunu kenn kenn kenn kenn. ñoom ñoo téye mbaar mi lay wax bisimilah nga dalal. wallaay xanaa dalaat ak jàmm di fay waa Njàmbur yow xale Ndakaaru non xam nga ndeysaan eh, eh. raf la jigul ndaanaan jigul maa la wax maa la wax temps nag damaa xaw a kii danga nga xàppi non damaa daanu xam nga ndaanaan day jékki-jékki rek rës damay rës fan yi ah, moo tax ma àbb yére bi sama sama yére yaay laa ala daanu ala sama yére sama yére yaay laa àbb ci xam naa ma nga toog fam toog naan gaawal pare te delloo ma ko xam nga léeg nga sol yére boo xam ne day am sens interdit <laughs> mi ngi noonu maa ngi fay waa njàmbur yi ngay wax noonu di leen fay bu baax a baax a mm-hmm, baax mm-hmm. waaye njaasaan gi nga waxet bu ma fa duggee du ma génn te ziyaaru ma maam eh, bu mm-hmm. nas kunta sama bosu bopp ba ma fa am kon daan dooreeti netti jërëjëfati Cheikhul sunu yaakaar yi ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela tëpp koy jalawra di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem noonu lañ koy ñaanalee mbokkam ma xaritam ba woon Cheikh Sidi di ñaanal Amadou Bassirou yàlla na yan bi oyof ak mboolem suñu xalif généraux yi mm-hmm. ndax ñoom ñoo téye mbaar mi ñun bu ñuy nelaw ñoom ña ngay ñaan mm-hmm. noonu la ñuy yaay dëggeen mu gisee soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kamara jibante boo yaaxa jaay yàgg fi ziyaar mama Kinushka yaay na fi ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen di ziyaar ñu ngi ziyaar itam suñu yaay Astu Jara di ziyaar suñu yaay Astu Seck di ziar mère Ndoy ñu ngi koy ziar di ziar maman Issa Diop yaaba mm. waaye noonu la ñuy ziaree suñu bàjjan Awa Diop bàjjan kenn du yow di ziar nag mbooleem suñu yaay yëpp yëpp yëpp di leen ziar di waxaat bismillah kon boobu ñu tàmbaliwaat rek dooraat mm-hmm. euh, Ndoy sa weex saf na sàpp nga mel ne ku këppoo meew ah fa nga mujjee ni ko sa weex saf na saf ba ma bëgg naan d'accord nga ni ko nga mel ni ku këppoo meew mel ne kuy fajarab de ah boo dee faji rab faaw da ngay sol lu weex. Mhm. moom ay rabam weex ay rabam weex la ñuy laaj. d'accord mhm. d'accord kuy mhm. baal. kuy faji naka naka naka waa France. jaajëf waa France ak da ngay wax ak mami bàyyi Eva Tra. non waxuma Eva Tra dama ne ko kuy kuy rab fat ay rab da ngay musóoro musóor gu xonq. Mm. voilà xonq léegi ma la sànnee xeer nga sànni ko xeer. saltige xonq yooyu lañuy yor. yaa leen fi kilifa di yal na yàlla defal leen jàmm ñoom allahumma amiin saltige yi ne dañuy seetaan ñoom itam dañoo ci dëkk bi. korom fay yal yàlla defal leen jàmm korom ak sama bosi bopp. <laughs> waaw moom day day seetaan wareefu baax. macha allah ñi ngi ziar kilifa kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu Serigne Ba Serigne Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér. di ziar waa Pire Sañu Xor gi yëpp Serigne Mansour Cissé sunu xalifa ba ak Serigne Maodo euh, Cissé mu ak monsieur le maire Serigne bu moom parent ji bi Diagne ngi leen di nuyu. ak Baye Bado Dieng ngi leen di ziar bu baax ak Serigne Baye ak Soxnaam. Mhm. ñëpp ñu leen di ziar bu baax a ak tous les de la diaspora. d'accord ah. kon boog tous itam ñu ngi leen di nuyu moo xam ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu wax nañ ko sànq ñii ñu nga Europe ñii ñu nga Asie ñii ñu nga Amérique mm-hmm. waaye ñu ngi ñaan yàlla ngeen yàgg dem ak ñëw ci dëkk bi di fi fekk jàmm di yóbbu jàmm bu ko defee li may njëkk def nag mooy gannaaw dama nekk en forme damay daadee dem ca Miandoo laaj ko rek waa kër Aram jàppale lan la ñu waxati jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi seen émission wareef nag di ci baaxoo di ànd ak les savants saf gis ngeen ko man ngeen a wootee ci 88 628 22 22 ñu may leen saabu 88 628 04 05 dinañ leen jox carton wi saabu te dana gën a yombal wax dëgg yàlla li nga xam ne mooy póot mi ci kër gi ak liggéey yu sew yi ñu dellu si waat nag ci li nga xam ne mooy sunu thème macha allah. thème bi mooy wàlli prostitution fànn bi ñu ko jëlee nag mooy jaay sa bopp maanaam di jaay sa bopp pour mën a dund di jaay sa bopp moo xam da nga ñàkk di jaay sa bopp moo xam feeling la ci yow ndax vis rek la ci yow di jaay sa bopp ànd ak lu mu mënti doon rek jàpp nañ ne loo xam ne lu jaadu la dëgg la nag métier bu yàgg la ci àdduna waaye du ñàkk buñ ci dee waxtaan dana am lu bare loo xam ne dana ko wàññi wax naa ko keroog mag buy jaay boppam nit mën na koo romb waaye gone goo xam ne mi ngi toll ci njalbeenu àddunaam xamul ràññewul xamul sax li muy def ban bànneex la ciy am xamul sax li muy def bu ëllëgee lan la ko yàqal kooku daal la ñu bëgg a interpeller ñaan yàlla yàlla delloo si ko may wax nag ndoy baan bi simila jaajëf Eva ñu ngi lay sant la gërëm bu baax a baax mm-hmm. euh, thème bi bi mu dalee daw ba léegi ñu bari ñu ngi ñuy interpellé mm-hmm. sànq yaa ngi may ci suuf xew fii ci réew mi ak la moo moog la xew bitim réew euh, bitim réew ñoo yam mm-hmm. euh, am ay femmes yu nekk bitim réew bi am na ku ma ci waxtaanal dem mu naan ma su fii de su fekkee yaa ngi fiy liggéeyee nga yam ci sa salaire di liggéey di sellal am na yoo xam ne doo ko mën waaw mun ma doo mën na ñëw Sénégal di def puukaréew di def maanaam dangay gis ñoo xam dañuy nekk bitim dañ nekk bitim réew mhm. moo xam seen liggéey dañ ko am ma seen xaalis dañ ko am honnêtement wala amuñu ko mais da ngay gis ñoo xam dañuy ñëw fii mhm. euh, di puukaréew ku ku ku ni ku ni naam dara ñu may la un million wala deux millions wala trois millions mhm. ci jigéen te soo la xew bitim réew ñëpp a koy xam te ji lu fanaan France yendu si Sénégal ñu gën ña fa dem gis nañ ña jigéen ña nekkee ak pour nga liggéey ba am sax benn un million ni muy dëgëre nga ñu gis nga jóge bi yow bitim réew ñëw fii di maye ay cinq millions kii euh, six millions kii ay ak i deux million y'a problème am na ci koo xam ne nag ne du samay wax nag ña ne bitim réew fa mi ne bitim réew ñoom woo di ma soo fekkee daal liggéey nga jubal jubal am na ci yoo xam ne doo ko mën di nga am loo dunde nag am loo yónnee say mbokk di soo fa yàggee ba yàgg fa sa liggéey dox di nga mën a am loo tabaxee kër fii mais doo mën a am loo pasar pasaree comme ni ko ñenn ñi defee parce que nit ñi ñi ngi koy gis beneen bi mooy euh, prostitution dafa laal dafa ànd ak dog xam naa thème bi soo ci génnee xam naa su peut-être nga euh, laal ci drogue dafa ànd ak drogue. ñu ci bari suñ ci nekkee dañuy drogué wu. am ci xale yi jigéen yoo xam ni euh, dañuy nekk ci milieu boo xam ne seen far yi ñi am ñoo leen di ñoo leen di dugal ñoo leen di poussé. ci ci drogué bi drogué bi il faut ñu drogué wu daal. pour mën a jaay seen bopp. parce xam nga boo boo drogué woo déjà sa bopp réer na la. voilà c'est ça sa bopp bu la réeree ci ngay mhm. mun a juuxu ci yenn yi nga xam ne àndul ak li li nature. léegi soo demee ba drogue bi wàcc nag ci ngay mm. toog nag di yenn yi parce que ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu taxaw ñu ci bari dañuy dañuy ñii dañuy tox ñii dañuy tox yàmba ñii dañuy ñii dañuy jàmm suñu ko defee ba kii nag ba tàggoo seen saxo mën a mën a génn ci mbedd yi def yooyu mais ñi ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo nekk ci ñoo ñoo ñoo xam ne danger lañ ci population bi mooy ñi nga xam ne dañuy nekk ci dëkk bi sañse ba rafet yoor seen i oto di doxatu te jàppewuñu seen bopp que ni ñoom ay prostitué lañ tegal loxo nga jëlal ma ci ñooñu bi dellu siwaat asalaamaaleykum allo. allo oui salaamaaleykum. ngeen def maaleykum salaam. allo. allo. ñu ko ça def wàññi télé. soo taalee télé wàññi ko. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam waaleykum salaam. allo. allo asalaamaaleykum. salaam. Adja Bal ñu nga wàññi sa télévision. waaw wàññi naa télé bi bu baax. man ñu ñu ngi ñu ngi lay dégg ah ñu ngi lay dégg. allo soxna si yow rek la ñuy dégg. wàññi naa télé bi ba mu seet. waxal waxal ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax. waaw ah, baax na maa ngi leen di nuyu di leen ziar Tata Eva. merci ak Tata Mami. Mm-hmm. seen Incha allah maa ngi leen di dégg bu baax. Mm-hmm. di nekk na deuxième fois mu xam ci TFM. ci Pade Guenchumère laa ko gëjee woon maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko ko àjjana. amiin fu nekk gën a ko fu mu jógee. day baax nga maa ngi lay nuyu di la ziar bu mm-hmm. a dugg ci benn thème boo xam ne dafa ñun ñi nga xam ne surtout ñooy jeunes yi. mais man benn cas kese laa bëggoon a dénoncé muy salle de massage yi Sénégal. Mm-hmm. parce que je vois que la majeure partie de la prostitution bi am Sénégal dama naan léegi salle de massage yooyu jigéen bu baax. Mm-hmm. dama leen jox benn anecdote bu gàtt bu ndaw. am benn copine la benn boo xam ne dafa marié ba tas am na ay doom un jour mu xamante benn ci cadre yu nekk Sénégal moom dafa ku kooku daf ko bëggee tout dañoo dem ba ci biir kooku di ko proposé kaay ma ubbil la salle massage boo xam ne day am appartement ci biir aar bu ma la soxlaa fekk la foofu. du coup kon ñoom paa yooyu nga xam ne ñoo war ñoo nekk ci gouvernement bi war ñoo seet ñi nga xam ne ñoo jeunes yi. war ñoo taxaw ñu jàppale ñu war ñoo teg dan ci condition boo xam ne sax condition yu baax mais war ñoo encouragé suñu njàng wala boobu ñu ngi waree suñu doom ñoom ñoo ñu pou pour ci prostitution bi Mm. te massage yooyu à chaque fois boo duggee ci réseaux sociaux yooyu da ngay gis ay nit ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne dañuy taxaw di jaay seen bopp carrément la wan ne massage bu sensuel bu def nii bu def nii bu def nii mm-hmm. Mm-hmm. kon nag euh, massage yu xew léegi Sénégal xaw ma ay sénégalaises ñoo koy def xaw ma ay ñag lañ ma fan lañ jóge ñoom ñu ngi ciy joué a a baax a mm-hmm. baax te su ma sañoon massage yooyu xool film genre pornographie yi ñu fay joué ak yeneen ñi nga xam ne mi ngi am foofu c'est à dénoncer te kenn waxu ci ak jigéen ñi nga xam ne léegi dañ lay demandé am yi ba pare ci suuf ñu naan naan dinaa remplacer kii wala dinaa remplacer kii loolu prostitution déguisée laa ko mën a tuddee parce que kooku ñu lay placé yow xaalis la lay jox mm-hmm. te xaalis boobu mu lay jox yow boo seetul yàlla wala seetoo leen bu yàggee da ngay lancer dans ce jeu boobu mm-hmm. donc man dama naan la ma jigéen ñi xale yi jeunes yi en même temps ñoo koy def mm-hmm. waaw loolu tax bëggoon na dina ko depuis comme émission bi commencé man tax maa ngi koy suivre bëggoon naa dugg mais tey dafa yàlla dogal. dëgg ah oui <laughs> a euh, parfaitement raison koy remercier bu baax li mu apporté tam wax dëgg yàlla am na solo trop. salle de massage yi <laughs> ni mu bare ci dëkk bi dafa ëpp. dafa bari dafa bari trop te du nañ et puis nañ bàyyi ñag yi ñuy jiiñ ñag yi defuñu dara ñun ñi ñun sénégalais yi ñun ñooy ubbi salle de massage yi. sénégalais yee koy ubbi sénégalais yee fay dem. du benn du benn ñag yi. salle de massage xanaa dañu koy takkaleeg auberge yi am. ci sunu biir koñ yi. déedéet waaw waaw auberge yi. Euh, euh, euh, c'est à part salle de massage ab ah, salle de massage yi dafa am salle de massage am lépp ci biir. soo ñëwee dañ lay propose soo bëggee ñu defal la massage normal ñu massé la nga dem soo bëggee massage plus am na waaw ah, massage ree ba tasit am na massage boo loo bëgg am na voilà dañ la koy bindal carrément ne massage bi lii la massage bi lii la massage bi lii la. loolu moo fa am te gars yi ña ña fay dem c'est prostitution bu rëy la mm-hmm. euh, police policiers yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi leen di ñu ngi leen di jàpp mm-hmm. am na ci koo xam ne fii nii Nord Foire gii la nekkoon benn xale bu jigéen bu fa doon liggéeyee moo ñëw expliquer ma affaire bi ñu ànd ba foofu mm-hmm. ma xam fan la ma woo borom ni ko yow mii soo arrêté wu li ngay def dinañ la jàpp parce que li ngay def kii moom loolu mu ngi am jëkkër am ay doomam recruter ay xale ubbi salle de toog këram su ngoon jotee ñu ñëw verser ko verser ko xaalis mm. te loolu da daf fi bari li nga gis xal am na ci xale yu jigéen yoo xam dañuy nekk ci internet bi di ut ay clients mm. soo waxee ñoom téléphone jox leen rendez bu ñu ñëw wax la fan la nga dem fa noonu la leen policiers yi di jàppee nag policiers yi da ngay gis dañuy gis numéro bi woote fa jox jël rendez-vous nga dem fa tëdd ñu lay maase nga xamoo ni policier ngay maase donc ñoom it dañ leen def très attention ñu bari ñu ngi leen ciy jàpp nag mm-hmm. ñu bare bare bari Adja Linguère wala soxna si dugg sànq dañ koy delloo njukkal bu baax ndax xam nga lii rek la ñuy soxla mooy borom xel muy xel li mhm. te li muy wax jariñ bu ko ñeneen ñi dégluwee dinañ xam ne ñun li ñuy wax dañu koy gën a dëgëralal loolu dëgg la euh, salle de massage yu muy wax am na ci ñoo xam ne amuñu sax saal far mhm. ñoom ñooy déplacé wu fekki la mhm. boobu mooy que out accès pour gën a mën a ñëw ci yow boobu lay doon am na ci ñu nekkoon Supreme. waaw groupe noo ko bëggee lañ tuddoon. Mhm. bokkut ak noo ko bëggee bu na jaañ bi nag ndax noo ko bëggee bu na fi moom 10 000 la lay fay ñu fekk la fa nga nekk dóor la ba nga nooy. Mhm. mais ñii groupe noo ko bëggee lañ tuddoon nekk juróomi xale yu jigéen. li ñuy sol bu ñu génnee ci koñ bi mag ñëpp leen di muslu mais naka lañ mujjee police mhm. parce daf leen mujj jàpp si. parce que demoon nañ ba kenn mëntu leen woon supporter ci koñ bi. su guddi jotee ñi ngi xeex ngi euh, fat ay nit. mu jige koñ bi nit ñi dañ koy gaare ba kenn dootul amati foo jaar kon li nga wax moo ci nekk mooy que nañuy gëstu li ñuy ubbi lan la mais ci immeuble bi laa dëkk ay xale yu jigéen dëkk nañ ci kaw ubbi nañ fi lu leen neex sama yoon nekku ci mhm. ndax laalu ma laalul sama doom yaa ngi ci erreur ndax nañu def ñoom ba jóge seeni kër ba ñëw fa noonu la ñuy def ba raas sa doom ba yóbbu ko ci biir sa doom mën na dugg gis xaalis ba tentative ba jàpp ko mu toog fa mais comme dañoo nekk ci wàllum xale yu jigéen yi mhm. euh, beneen jaay sa bopp bi gën a garaaw xale yu jigéen yi jàpp ne du jaay sa bopp mooy NST bi Mhm. not sexuellement transmissible NST waaw ñi ngi ci période examen yi génn nañ ci mais examen bu ñëw bu nekk rek di nga ci gis xale jigéen yoo xamante ne dañuy jaay seen bopp ci prof ba mhm. wala ca keneen ak keneen ku nekk ci école ba mhm. wala kañ jàpp ne moom moo war a surveiller jour boobu mbir ma wala dara pour que mën a am not yoo xamante ne yow liggéeyoo ko kon yaa ngi dugg ci prostitution ci biir école yi euh, fa la ëppee dëgg la xale yi moom fi mu toll nii tooguñu taxawuñu ña nga ne jodd ñoom liñ nekkee kenn xamatul lan la mhm. parce que xale su demee ba wow bët lu nekk mën na ko def mhm. ndax xale da daan am kersa dañ daan wax naan xale fekk duggagul ci néegu sëy du look yow xool la ci biiri bët mhm. léegi nag xale Sénégal dañ lay xool ci biiri bët ba jël seen loxo boo xefee ñu yóbbul la sa bët bi nga yor yow yemal ci loxo bi nga jël ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam soxna su baax si ñu ngi lay dalal waaw maa ngi maa ngi woote maa ngi bien waxee fan uh-huh. voilà maa ngi leen di woo di leen di nuyu. ñu ngi mais euh, affaire prostitution bi bi ngeen koy wax. Mhm. man dafa am leen la loo xam ne xaw na ma ci jaaxal tuuti. Mhm. parce que mam yi dafa ne démb que euh, xale yi dañuy euh, def ay dañuy sport di defaru di di leeral di ki yëpp pour attirer jigéen ñi. Mhm. mais man ma am loo xam ne jaaxal na ma trop maa ngi fii France. mais oustaz si nekk télé. di sënc ba jekk. bu jigéen wootee ñu jël la ci suuf jël sa numéro. Mm-hmm. di waxtaan ak yow. Mm-hmm. guddee bu guddi jotee ñuy waxtaan ak yow ba suba teel dafa dal sama benn xarit. Mm-hmm. waxtaan ak yow bu fekkee ne waxtaan bu waxtaan bi demee ba yàgg ñu woo la laaj sa téléphone iPhone. wala bazin. wala lettre d'invitation pour ñëw. soo nangoo ngeen continuer boo bañee dootuñu coupé dootoo dootuñu la jël ci téléphone loolu lan la. ah sorew benn bi la ren. loolu la de. non wala ñëw ba fii nekk ci télé defaru ba jekk man dama xamul oustaz ak defaru ba jekk sax. ah mais ah? oustaz nag mais ah, ah, eh, oustaz day ba jekk. loolu non oustaz nañ defaru ba jekk. Mhm. mais defaru ba pare. yow bu ngeen ñëwee fii France fekk jekk di conférence jekk yu gën a si jekk a jekk ci gën a am oto jekk bu si gën a kii nga fexe ba takk ko mu defal la àddina ak li si biir teral la ay mhm. xaritam teral la. Mhm. nga ñëw fase. jaaduwul non mhm. man foofu rek laa bëgg a waxee tamit parce que loolu bu ñu affaire pro bon ngeen baal ma de. déedéet da ngay wax sa xalaat affaire boobu xaw na ma jaaxal tuuti. wax nga dëgg. Mhm. waaw <laughs> ngeen baal ma nag. Ndoye Bane moom je sais que bon yooyu affaire dugg ko parce que tout temps. Uh-huh. il euh, bon moom wane na que moom vraiment mari baan te mari daan du am wujj. waaw lu loolu ko la ko wax ma defaru bis bu ne ma defaru ba jekk doo leen ma invité euh, doo doo lu ma leen de defaru naa bay bëgg ah yéen a tax mer a tax indiwuma koppati bi. est-ce que ah. xam nga kii woote ku la. kii kay dafa neex. non kii dàq ñëpp. Ah, ah. waa waa mais moom itam non ni ngeen di invité oustaz yi. invité leen ma noonu ma defal leen conférence. déggal wax na loo xam ne cri du cœur mais loo xam ne moom la dund wax na loo xam ne daf ko fekkee teg ci bët. li mu wax am na ñeneen ak ñeneen ñu ko jooy. mais xam nga Sénégal koo fi laal teraangaam doon noonam. mais dafa am jéeg joo xam ne Sénégal lu jëm ci diine rek dafa joo xam ne. oustaz yee leen di daanal ak ak ak imaam waa dëgg la xanaa da nga wax ne jéeg ji ca boppam boppam mooy dégg waa ji jàng alxuraan xolam sedd ci waa ji mu ne ko may naa la sama oh, bopp c'est ça loolu la buum gi rek laa soxla ma la ñoom jeeg ji nag ñoo naan ko buum gi rek laa soxla waaw buum gi rek laa soxla buum gi laa soxla waaye xam nga loolu bu ko soxna yi si soxna yi di wax waxu naxasaxan nag na ah. ne buum gi dong wax dëgg yàlla mënta yor ah, diggante waa mais xam nga li ñu naan ku la may soxna naan la naka euh, euh, laaju ma la dara dalaa liggéey loo waaye wàcceewu la waaw mais xam nga ku ñu nëbbu ci ron lal du wane tànk mm-hmm. ah bisimilah. xam nga ko ñëw sañax la boppam. kii raas pour dugg. booy këpputal picc def ca tuuti dugg ba ko su ndox. Ah. du pour dundal picc ma pour jàpp ko la. waaw boo ko jàppee ba pare nag commencé imposer sa bopp. Mhm. nii nga ma war a yoree nii nga ma war a yoree. waaw mais xam nga oustaz beeg. bi tem la keneen keek. tem bu mag a mag. Ah, tem la de waaye nag bis boo ko fi temee nag dinga nga di nga ma indil problème maa ngi doy baan ndax xam nga yow moom gars yi yaa yaa lañ la jàppee ñun nag lu ñu wax ñu ne ña ngay laal diina ja ña ngay. gerte gi léegi mi man ah. mi nga bëgg a yàqal lan la. fekk ne ndeysaanam yaay xamuñu ne. ñu diine mais problème bi mooy. Mm. ñiy gàmmu ak ñiy raas dem bokkuñu. te muy dëgg te gis nga mbir mi ni mu amee ca élève ba. waaw amee ko ca animateur ba. amee ko ca animatrice ba amee ko ca waykat ba noonee la amee ca politicien ba noonee la amee ca conférencier dañu koy wax ci kaw ak beaucoup de franchise. am na mmh. ñoo xam ne fu diine yàqoo ñoo ko gàqal. te muy dëgg. ndax nga ni danga nga jàng alxuraan. xam li diine bëgg xam li ñu wax ci jullite xam li ñu wax ci charte yépp ñu tegal na ko mhm. beneen comportement boo am defe naa ne yow sax bu ëllëgee bu la yàllay mbugal dina ko def triplement wala xaw ma ñaata yoon mais nag def leen ndànk mhm. ustaas bu jënd jasneeram bu rafet wootu dëgg la sol ay veeram dem ca conférence ba dëgg di tari alxuraan bi ba mu neex mm. di conférence ba mu neex ak mm. gis ko nopp ko loolu du dara fu ko nobee da koy nopp ba dee. ah nobante kenn mësu koo tere waaw jeex na léegi nag waaw waaw. non non li ndaw si wax sama waay la mais man. d' accord wax nga non d' accord ma. d' accord femmes yi ñooy ah, ñoo leen di provoqué ñoo leen nopp. waaw man buum gi laa bëgg jàngal ma soratu yaasin jàngal ma nangam mu jàngal la ko. <laughs> c'est tout. non yàgg na koo fekkee non nga ni nga ni noo ko waxee. ñoom la lépp ñoom ñoom ñoo bëgg ñoom ñoom ñoom ah te bisu ne ba dóor samay jasneer du tee ñu tax ñu tànn ma mu tànn ñu ma. est-ce que tànn ñu jàngoo alxuraan jàngoo alxuraan voilà ah, ah, ah. bee leen neex ku ci nekk ak yi daaneel. waaw ñii oustaz yee leen di daaneel. ñii imam yee leen di daaneel. ñii animateurs yee leen di daaneel ñii ministre yee leen di daaneel. ñii député yi. femmes yi ne bitim réew dañu fa am ñu fa nekk yoo xam ne ba dañoo toog lu yàgg amuñu jëkkër waaw suñu gisee oustaz bu leen di piis te li koy sa bopp kon moom ay notam yim ci am jota am yëpp ah, ci jaay boppam la ko amee te moom yëgul ne ma ngay jaay boppam kooku su demee bay dem ca bureau ba war a liggéey diplôme ba mu yor moom da koy xeeb mm. donc promotion kana kidnappé rek la mën a def ma ngay continuer di jaay boppam te moom yëgul ba tey na day jaay boppam mu dem ba ñu jox ko fal ci réew mi mu nekk prostituée politique mm-hmm. oh. am na ci politiciens yoo xamante ne doxalin bi ñuy doxal mm-hmm. prostituée lañu mm-hmm. parce que lu loo mën di dugg na rafet soo da bu soo ko waxoon bu néewee jeex ànd ak ngay wax waaw su néewee jeex su baree jeex na lépp di rafet mais am na nooy jaayee sa bopp yow ak prostituée bi ci mbedd mi yéen a yam kepp ndax ngor jeex na fa rafetal jeex na fa donte politique du diine du yoon boo xamante ne da ngay topp nit ki ndax ne da nga koo yaakaar ci leen li mbirub àdduna la fii la yem mais nañu koy rafetal mais xam nga ki nga xam ne bi muy ndaw mm-hmm. di tepp teppal ñu koy dëbbal muy dox la commencé di jaay boppam ci yu ñàkk fayda te yëgu ko kooku poste boo ko mën di jox mu ko dafay mel ni yenn xeetu yu yi yenn xeetu dem transhumé mm-hmm. euh, dafay mel ni jikko yi prostitué la ci gàttal mooy loolu euh, euh, tey nga xool nekkoon fii jóge fa dem fee pour ay intérêt yooyu yooyu loolu la wala. man man ànduma ci loolu. ànduloo ci loolu. gis nga fii nii. waaw nañ bàyyi nit ñi ku nekk fu la neex far. d'accord. far nga fi nga far. waaw bàyyi ma ma dem fari fu ma neex. d'accord c'est ça et puis. Euh, soo gisee Eva mu dem far ñetti yoon tey jóge parti bi suba dem parti beeg lépp ci ci. ku la neex demal. d'accord c'est que nit ñi nañ bàyyi nit ñi. ku mhm. nekk di far fu ko neex. d'accord yow far nga Balla Gaye ak Modou Lo yu bari. Mhm. ma man Balla Gaye laa faral. faralal Modou Lo. très bien su ma neexee su subaa ma faral Bombardier. Mhm. mais gulu sa problème. yow toogal fi nga toog. contexte yi bokkul histoire yi bokkunu. non man daal li ma gis mooy. ku nekk na far fu ko neex. mais ci affaire pro pro prostitution ci côté politique bi ko kii waxee. jëlal ki ci ligne bi nga dellu. allo asalaamaaleykum allo prostitution. allo. allo waaw. <laughs> waaw maa ngi lay nuyu. maa ngi nii rek. di la ziar di nuyu ñi nga nekkal. ñu ngi lay di ziar bu baax. Mamek euh, Eva Tra. waaw waaw waa dama bëggoon participer. ayca ba tey may xaar. waaw. allo. allo. waaw man la ma ne dama nekk étranger. waaw. dégg ngeen di wax thème bi. waaw. ma ne nag naa woote participer mosuma participer c'est la première fois. merci dëgg la. Mm-hmm. ma ne kii kii nag samay soppe la ñu évatra. ndeysaan. allo. waa ñu ngi lay dégg bu baax déglu bu baax. waaw mais man déggu ma bi laa janoon nii mais. mais li ngay wax yëpp ñun ñu ngi koy dégg ñu ngi koy dégg waxal. Mhm. waxal da ngay wàññi télé ba mu jeex. ñu ngi lay dégg bu baax. dama dégg ngeen di wax thème bi ñi nga xam ne dañoo moom seen bopp te ne ci dëkk étranger yi. waa Alioune Ndoye Bane yaa ngi may maa ngi lay dégg ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax. waaw waaw. man def ko signe mu xam ne yaa koy dégg. maa ngi lay nuyu. bu baax a baax soxna si. léegi léegi laaj naka waa bitim réew. waa nga bëgg sëñ Touba ñoo ngi nii rek. waaw man alali Ahmadou Bamba laa. wax ko macha wax ko mu mu wàññi télé bi. man taalibe sëñ Fallou laa sëñ Abdou léegi da ngay wàññi tuuti télé bi. waaw ma ne dama doon bëgg a participer rek. yaa ngi ci biir yow rek la ñuy déglu. waa léegi ma ne. man Europe laa ne. dëgg la. sama doom yépp la ñu juddoo. Mhm. macha allah ba sëy si. Mhm. waaye nag euh, li mu fa ndox daan taa ba tey boo demee fekk fa tey. Mhm. ñay bon a ngay ne Sénégal di bon. Ah, waaw waaw. baax a ngay ne Sénégal di baax. kay dëgg. boo gisee ma woote. li ñu nii ñu nekk étranger yépp. bu ñu ñëwee fii di pasar pasaree seen xaalis bi ko ñooñu dañ koo tal wala daf leen a neex. Mm-hmm. mais bu ñëpp bu ñëpp yemoon am ñu jënd seen mm-hmm. te muy dëgg. am nañu senegal na Sénégal di sëy dafa Europe di sëy yor seen i doom yar leen. bu mm-hmm. manqué waxtu julli bu jàng jotee ñu jàng bu war a def si li ñu war a def comme bu ko ne Sénégal. man li may dund li ma nekk nii li may dund doon dund Sénégal laay dund. ça dépend ci yaru nit nekk nit nekk na Sénégal bon nit nekk Europe baax kenn bonewul nit ci jikko lay ne loo loo gis nag ci jikko la mhm. Mhm. dëgg la ak nañ la yar mhm. dëgg la kon nag su fekkente ne da ngeen def thème bi am na importance ñëpp a ngi ciy neex na te yàlla seen yàlla fay ndeysaan amiin mais boo gisee may wax man madame balaa tudd man mi boo paree sa numéro a soxla bala maa coupé. incha allah Mia dina la ko jox. damay ñëw nii damay ñëw nii balaa yàgg ma ñëwee dinañ gisee dinaa la gën a expliqué. incha allah. waaw damay leb tur wi mais bu ma ñëwee di nga xam maay kan man. incha allah. <laughs> léegi ñun soo gisee may wootee. Mm. rek pour participer. pour waxal la ni nit ne nag fu ne te bon nit ne fu ne baax. te muy dëgg muy Amérique muy Espagne. muy Italie mm-hmm. muy Sénégal dañu def. ñu def fa toog ñu def la muy def. Mm-hmm. Mm-hmm. fii am na fi ñoo xam ne kër Sëñ Touba la ñu sanc bu jàng amee ñoo nga ca jàng ya. ñoo nga ca wax ca liggéey ba bu sëriñ ñëwee jóge Touba maamu jóge Tiawan maamu jóge ca Laayeen ya ñu ngi takk suñuy ndigg. di leen di leen di leen tërbiyu. macha allah dañuy def ci leneen Sénégal. wallaay dëgg la sàcc ñu mooy ñu jaaloo ñu dañ fay yor suñu jëkkër ñu takk ñu andi ñu fi ñu sëy si fi am fiy doom. suñuy doom bu Sénégal xale yu Sénégal di jullee ko jàpp noonu la ñuy jullee bu war bitee noonu la ñuy jàpp noonu la ñuy jullee. nit ku nit ki niñ la yare ci sa deret la cay daw ak fa nga bokk boo ko xamee foo manti dem lu mu sori sori sori rek di nga xam ni yow mi goro war a daw ci yow ndax ma nga jóge dëgg la ak kay dëgg looloo tax ma ne naa woote participer d'accord naa ci li ngeen di wax yéen a partout fii yéen a partout Sénégal yéen a partout Espagne yéen a partout Italie mais nag fu ca waay ne rek. Mm-hmm. nañ la yere. Mm-hmm. mooy ñëw waaw waaw ala kulli xaal wallaay. looloo tax may woote. Mm-hmm. di wax ci ci thème bi musuma woote nag. ndeysaan mais ñu ngi leen di sant bi leen gërëm di ngeen di yee nit ñi. jërëjëf ndax ku dem beneen fii li liggéey fii méttee nga nga sa liggéey wàcc. bëgg a togg bëgg a yat bëgg a yar say doom bëgg a toppatoo sa jëkkër. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax la ñëw di pasar pasare. dëgg la dëgg la. Mm-hmm. looloo tax may woote. mami sa numéro laa soxla. Mia dina la ko jox ci suuf. wax na lu am solo. wallaay butéel moom ku mbokki taalibe boobu ñu ngi koy ziyaara bu mhm. baax a baax a baax. butéel bu ne la mu def la kubéer gay xeeñ. dëgg bu ne la mu mhm. def la kubéer gay di xeeñ. Mhm. loolu la maire bi bëgg a wax en résumé lool la. c'est vrai ñun ñii dem nañ fa. gis nañ ay femmes yoo xam ni dañuy sëy comme ni ñuy sëyee Sénégal maa ngi lay doon wax ku ñuy wax Adja Fili. madame dooy jabaru gendarme bi ma la. paasoon téléphone mu ngi nekk fële CMCL sur Orge ñu ngi koy nuyu. ci dëkk boobu gis naa fa ay femmes yoo xam ne genre mbootaay la ñuy def. Mhm. kenn liggéeyu ci kenn demul ay xëy di liggéey ñi ngi seen biir kër ya toog di di sëy comme ni ñuy sëyee Sénégal. fii bu gën a jafe sax ne Sénégal da ngay am ku la jàppale. bari na am na koo mais ñoom amuñu ku leen jàppale. am buloo métro dodo koo xam ne xaritu xaritu waa kër gi la Papa Ngom lañ ko wax. Mhm. te pour Salam Diallo di ko way. dëgg la kooku soo demee këram da nga naan soo nekkee su kër gi tëjoo da nga naan Sénégal nga nekk. kay que Sénégal dañuy toog di góor di liggéey. Mhm. loolu nag li mu amee nag jeeg yu baax ay jigéen yu baax yoo xam ne suñu fa demee dañ représenté dignement seen pays toog di sëy rek te yàlla tax ak ay mhm. seeni doom yoo xam ne jàngi wàcc liggéey wàcc mhm. noonu la fa amee yeneen sénégalaises yoo xam ni soo demee dix-huitième fekk leen fa ñu taxaw di jaay seen bopp loolu kay man maa ko fekkee 18e mm. am na beneen place boo xam ni benn genre boîte de nuit boo xam ni Sénégal yu bari xam nañ ko foo xam soo fa demee da ngeen fi da ngeen leen gis ñu bari fa bari leen fa bari fa bay bëgg a dee euh, après dinaa xam euh, tour bi dina ñëw léegi sama balaa émission bee jeex bokkut ak côté Moulin Rouge non non non benn genre boîte bu siiw boo xam ni daal mm-hmm. euh, soo fa demee da leen fay fekk ñii ci tali bi ñii ci biir boîte bi am na beneen quartier bu ñuy wax tamit Barbès soo foo jóg na damaa min France nag xam nga soo fa jegee di dem 18e côté boobu yëpp da bëccëg gi ngay leen di gis nii am na ci ñoo xam ne doo leen mën a identifier doo mën a xam kii sénégalaise la mhm. wala du sénégalaise wala parce que dañ ay nit yu ñuul la nga xam ne ñii ay ay africaine la ñu mhm. ki ma àndaloon moom moo doon wan bërëb yooyu yëpp dama ko wan ma ma expliquer affaire yooyu mhm. c'est que lool ci boppam lu am la mais tamit euh, ñu baax ñi wax dëgg yàlla ñoo ëpp ñoo ñoo ñi nga xam ne ñoo jaar ci ñaar ca ca weneen yoon wa ñu mel ni maire bi soxna si woote. ak mhm. ñu mel ni madame Ngom. nit ku baax ñu baax woote ak ñu mel ni madame Ndoye ñooñu bari nañ fa. bari nañ fa munul ñàkk. ñu ngi fóon aussi soxna Lalla jàlloo vraiment suñu xarit la ma nga ca France. Mhm. ñu ngi suivre émission bi en direct Lalla ñu ngi lay foon foon yu mag di dalal ki ci liñ bi ni ko salaamaaleykum allo. aleykum salaam allo. ajaratu bisimilah. yaa ngi lay alo allo allo allo allo. ñu ngi lay dégg. waaw Eva eh na def. ñu ngi sant yàlla bu baax. mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah rab alamin. maa ngi dégg seen thème bi depuis semaine euh, passée. wax nga dëgg am na solo trop trop wax nga dëgg wax nga dëgg. ndax wax moom du doy chaque jour ñuy gën a xale yu jigéen yi rek. dina mm. baax un jour. bu baax waaw dama bëggoon tamit ngeen wax ci ñi nga xamante ne nii animation la ñuy def ak animatrice yi nekk ci télé yi. dëgg parce que ñooñu ñu ngi def loo xamante ne nii moo raw prostitution. dëgg la am na si ñoo xam ne dañu nekk si télé bi mag yi yow ba mel ne taxi defaru ba jekk. Mm-hmm. di charmer góor ñi rek moo tax ñu koy def. ku leen woo dañuy dem ba extérieur foofu. ñu mhm. nekk dañuy tëdd ak ay góor foofu noonu dal si ñoom. Mhm. Sénégal aussi la même chose gis naa ci koo xamante ne ni googu la nekk. Mhm. am na jëkkër de mais nee na il faut mu divorcer ak jëkkër ji parce que li xaalis bi mu doon am moom ci góor ñi amatu ko ndax jëkkër ji daf koy baare. pour te dire que animatrice tamit yi nekk si télé bi. ñoom tamit ñi ngi def loo xam ne si côté prostitution bi il faut ngeen wax ci gën leen a ñaaxaat tamit. parce que góor ñu fexe ba am seen numéro woo leen ñu nangu. Mhm. di laaj xaalis di def du n'importe quoi man yaakaar naa prostitution boobu moo gën a bon sax. ci taxaw ci télé bi yor kàttam. dëgg pourtant dang ñu dab. non non kon dang ñu dab mais barki démb. Mm-hmm. maa ngi naan bu ñu wax benn métier bàyyi suñu métier mii. dëgg la wallaay ndax am na ñu ci nekk ñu ci nekk ci loolu. Mm-hmm. am na ñu ci dugg ñoo xamante ne bëgg a feeña leen ci dugal. dëgg mm-hmm. am na ñuy raam jëm si ci ñoo xamante ne bu ñu dikkee mu gën a bon. est-ce que barki démb rek fii laa toog di ko wax. dëgg la. bilaay man na man kooku noonu nekk TFM noonu ki ki ma doon wax daf ma sax bett. Ah. loolu source bu sûr. mu ne day divorcé parce que li mu doon am amatu ko. Mm-hmm. li mu doon am moom kon. li doon compte nee na li mu doon xaalis xaalis la sëyee ñu nekk extérieur rek ñooñu amatu ko. mu xanaa moom amul xaalis. loolu loolu loolu. xaalis bi nee xaalis bu bëri bi mu doon am si góor ñi la amatul. moom lu muy liggéeyal boppam. dara liggéeyul dara foofu la nekkoon tey sax. Ah, d'accord. nee na fii la nekkoon tey ah, ah. fan la nekk léegi. c'est que bon moom. jigéen a ngi topp kopparu góor te boo góorgóorloo tuuti ndeysaan. dimbali ko góor ka sax wallaay wallaay bon moom. Mhm. nekk TFM ak. waaw nekk 2S nekk foo mën da nga ko faa yóbbu. wal fajiri ci ñoom foo mënti nekk. wallaay da ngaa bon ñëw fa. dëgg la. waaye bone fa. Ah, dëgg la de dëgg la de. bone woo fa de. Ah. parce que da ngaa nekk magum jëm. Mhm. yàgga def yëf yooyu. Mhm. di fa doog a dem. dëgg la donc du du du bi moo lay taxa moom euh, moom moo lay taxawoo. xam nga mooy li ma la doon wax li mami brossé rek ñoo xam ne dañuy utiliser bi nag. pour jaay support la pour ñoom. support la pour pour pour jaayu ndaw si li mu wax dëgg la. mais kooku ci mën si def it sa boobaa gis nga lii nii. lii ñu nekk nii lii yàggul de. c'est éphémère wallaay baal wallaay yàggul yàggul de ku ciy def na nga ci def lu baax. dëgg la voilà yàggu dara yàggul. xam nga barki démb dama ne la. li tax ñu war cee tey mooy dafa am ku ma ci doon waxal bi ma ciy dugg. mu naan man damaa ñemewul seen métier moomu. Mhm. ma ne ko télé yëpp ba juddoo ba léegi TV la ñu sant moom la ñuy sant ba ba ñuy rajo yi lan FM la ñu sant ñoom ñëpp. d'accord ku ca ñëw ñu soppi la yaa soppeeku woon ba nga fay ñëw. mais dafay métier moo xamante ne Eva. xam nga lu gën a triste ci àdduna. lu gën a triste nga toog ci télé di wax góor toog ca fa mu toog joxoñ la baaraam même bu fekkente ne gisoo ko. te la muy wax nekk loo xamante ne dëgg la. jaaduwul jaaduwul wala nga def loo xamante ne yaa ngi toog mais yow wóor na la yow la nga def démb bu siiwoon doo toogaat tey. loolu dëgg la nit ki wéetal gore wéetaleekul gore. Ah, amal sa ruq mën kan su naree metti dugg fa ndax xam nga lu tax. Mm. li ngeen wax sànq métier mu éphémère la feu paay la. bi muy tàkk ak bi muy fay benn la. dégg naa kon jàpp naa ne nga mm. fàttale ko ana ñoom yaa mbay ñas. Mm. Mm-hmm. ana ñi mbay ak ñas mi doon théâtre. nee nañ dem nee nañ am na ñu bari dañ jàppoon ne doomam laa. Adja Mbaye mu Medina. waaw bari dañ jàppoon ne nee nañ doomam laa nga nga fàttale ko ana ñoom màgget wadd dëgg la. ana ñeneen ñooñu. dëgg nga xam ne kon lu ci nekk temps la. Mhm. temps bi nga ciy toll rafetal ko ngir bu jeexee. Mhm. nettali ba mën a rafet. bu baax toog ci télé taxut bon. ndax am nañu toog ci télé ñoo xamante ne lañuy jomb am na ko toog ci biir kër yaayam ma papaam ñu di sëriñ ñu leen di sukkal ak raamal te jomb ñu la ñuy jomb mhm. c'est important kon moom itam ñu ngi koy remercier bu baax ndax fi mu dikkee am na solo solo lool bu ñu ne dañuy waxtaan dañuy xool paramètres yu bare yoo xam ne dañ koy mhm. mën a waxtaanee te métier boo gis ci àdduna rek wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ñoo yàq métier ma dafay am waaye yàlla ñu ci yàlla musal xam nga loolu lu ci gën a bon mooy su fekkee da am douze far douze yi kii di la jox cinquante mille kii la ji mm-hmm. la jox cent kii ji la jox deux cent mille am ko la ciy jox un million nga nekk célibataire loué sa appartement dëkk fa loolu lépp nga koy encaissé mois bi di nga am plus de presque cinq millions ci weer wi ah, nga na waaw day am <laughs> mais mbaraan bi daa dox nag de cinq millions waaw waaw parce que soo amee douze far douze far yi ñoom ñëpp kenn néewu ci doole ñi lay fayal appartement ku fa ñëw de fanaan fa wala yendu fa may la dara léegi nga man ndax xale yi dañuy takk dara. ndax xaaral rek damay laajte. waaw man léeg-léeg ma gis léeg-léeg xale di laajte kii fan la sangoo. gis nga gis ah, xale bi du mel nenn. Mm. waaw mais man damay laaj mus naa la ko fee laaj eh, barki dem néew ma la gone gi lu mu takk. da ngaa fàtte. Ah. pël ah, ba ñoo ko toxaloon. may leen ma bu leen ma yàqal dama leen a bëgg a déglu parce que yéen ñi dama foog ne nit ki day am sëriñ bu wóor salaamaaleykum. allo allo. allo oui. ñu ngi lay dégg bu baax. waaw bonjour. Euh, asalaamaaleykum. waaleykum euh, salaam wa rahmatulah ñu ngi lay fay. Euh, maa ngi woote fii France. man nag dama nekk dama nekk jeune nag moo tax xam naa damay jégalu ci kàddu yi parce que aw ma habitude di woote télé. ndeysaan. maa ngi nuyu Tata Mami tonton Ndoye Bano ak Tata ñu ngi lay fay di la dalal. Euh, di leen euh, jaajëfal liggéey bi rafet na trop euh, thème bi dama ñëwoon sama kër belle-sœur tey. Mhm. ma ñu jàpp Télé Sénégal ma gis thème bi am solo lool fekk man maa ngi ci yore témoignage ba nga xamante ne. Mhm. daf ma marqué dans ma vie. il mhm. fallait que ma wax ko pour sama sama mbokk jeunes yi ñu mun cee déduire leçon. moo taxoon ma ne il faut ma woote. pour mun a def sama témoignage parce que man bu ma nekkee woon Sénégal. Euh, temps yu may jàng dama doon def euh, chaque vacances scolaires dama doon euh, Dakar di liggéey comme bonne pour à la fin ma mun a jënd sama fourniture scolaire fay sama institution ak sama bourse rap yëpp. c'est bien. Mhm. léegi yàlla dafa def yéen a may dégg. bu baax ñu ngi lay dégg. d'accord yàlla dafa def nag ma tombé woon ak ay patron yu baax. Mhm. au début ñu ngi baax bëgg a di nekk ñu woon ay sénégalais bi fa ñëwoon mission pour rapport euh, au nid mhm. ma nekkoon di leen fa liggéeyee nag première année bi ça a bien marché chaque année saa yi moo ñëwee vacances ñu daal di may jël ma def seen kër mhm. léegi appartement bi ñu jàkkaarloo woon dafa am ñaari magarak yi nga xamante ne ñoo bokk ndey ak baay nekk ñoo xamante ne ñu ngi issu ci famille ba nga xamante ni famille bu baax famille bu nekk Thiès mhm. ñu ñu ñu jiboo woon di le début bu ñu toggee ñu woo ma ay affaire yooyu ne ma comme danga wéet ñëw fii ñuy lekk ay ceeb affaire ñoom euh, maa ngi gis ñu ngi dëkkoon ak yeneen góor ñoo xamante ne dama yàlla jégal ay góor jigéen lañ ñoom dañuy jaay seen bopp jigéen ñi di jaay seen bopp góor ñi di jaay seen bopp di def lu nga xamante ne baaxul guddi baaxul bëccëg te bu bëccëg jotee ñu mel ni nekkul ñoom ñu ngi yore kenn ki gën a mag mu ngi yore ñaari doom mu ngi yore doom bu jigéen ak doom bu góor saay bu xëyee ay jaaykat dañuy ñëw ci kër ga indi leen ay bagage ñuy jënd di jënd ay yére di jënd ay dàll di jënd lu nekk di yóbbante seen doom yi. Mhm. man may xool ma ne lii parce que man bu ma nekkee école des fois damay gis sama moroom yi ñu ngi sañse ñu ngi solu xam nga ñu ngi bëri ñu nga am lu nga xamante ne man aw ma ko ma leen ñee mais yàlla dafa def ma loolu ma gis moo tax ma sant yàlla bu baax parce que maa ngi ñee ka nga xamante ne xaw ma. fan la jëlee xaalis bi parce que ñii seen yaay ñu ngi jaay seen bopp. Mhm. di leen jëndal ay bagage pour ñoom ñuy sañse te doom yooyu ñoom xam xamuñu seen yaay fan lay jëlee xaalis boobu ñoom dañuy liggéey at bi yëpp bu weeru koor jotee ñu woote ñaari doom yooyu ñu ñëw vacances bu ñu ñëwee ñu ne leen dañoo jël congé ñoom fu ñuy liggéeyee pour def ak seen doom yi pendant tout le mois de ramadan bu koor gi jeexee ñu ànd ak ñoom dem korité di Thiès ñu dëkk ñoom dëkk ak dëkk noonu ma leen di suivre di leen xool Euh, mënu ma woon lool samay rakk laa ci waxtaane ma ne leen carrément bu leen gisati nit mu sol wala mu léegi ba ngeen ñëw parce que adduna mm. euh, dafa jeex ba pare lii rek lii su ma ko teggutoon sama bët duma ko mos a duma ko duma ko mos a gëm parce que j'étais choquée man mosuma xalaat ne ak ñoom doom yu ñu julliti doom yu julliti yi nga xamante ne moom la ñu am mm-hmm. ma macha allah man affaire bi daf ma métti parce que doom yi xamuñu doom bu góor bi dafa julli te bu ñëwee day jàpp di julli di def lu nekk ba ba ñuy ñibbi ñoom ñu toog seen kër appartement seen xarit yi nga xam ne dañ fay ñëw di fa def nag su loolu dañ leen wax téye leen seen tànk parce que suñu doom yi dañuy ñëw. Mm. léegi doom yi bu ñu demee rek ñoom ñu commencé waat di def seen seen lu bon te loolu baaxul. te mu ngi mm. xewee foofu Dakar ñu bëri bi ci teg seen bët te nangu bu ñoo wax. macha allah wax na wax na hmm. yàlla yàlla yàlla suturaal nu amiin amiin yàlla démb rek maa ngi waxtaan ma ni nit ki daal na la sa bopp doy mhm. bul jël sa yaram bul nekk ci poowu keneen nekkal yow. Mhm. parce que la keneen koy dund yow xamoo ko. Jóob li Eva dund xamoo ko. la keneen koy dund man xaw ma ko. nit ki na gëm boppam. rek doy na mais moom dañu koy encourager féliciter ko mhm. bu baax parce que jaar jaaram. Mhm. dana jàngal keneen. maa ngi koy wax keroog yàkkamti moo bon ci nit nga yàkkamti. am na ñoo xam ne nank nank nank lañuy àggee fa ñu jëm. waa léegi waa léegi dama lay laaj. naam ku am lépp ci àdduna doo fi jógee. jàng tey mhm. am di diplôme tey mhm. tekki tey almadi tey tukki tey eh. almadi tey eh. oto tey waaw kër tey wax nga waxu Idi Ba waa léegi lu lay dese Idi Ba de wax na mag dee tey nee na ma awa sama xarit bi ma ne ko naam taalibe Cheikh waaw yaa xam idi mu ne ma teel a dee yi léegi saay du dara mhm. lépp ñun xale yi tey dañuy bëgg lépp jooni jooni tout de suite mu ne ma nag bu lépp motee tout de suite nga daal di wuy nga daal dee tey lan moo la fi dese bu te tepp tepp moo gën yuréet pë wallaay dëgg la gis nga xale bi génn léegi ay parents dañ koo yar éducation de base la mhm. ci dignité mm. jomb jomb ak doylu gis nga loolu parents yi su la ko defee ci yow mu dëgër këj foo dem da nga fay mën a dem da nga fay mën a nekk am na ci parents yoo xam ne ndeysaan def nañ ko ci seen i doom ba sonn mais su sa doom ñàkkee jom mu kenn mënu ci dara may naan la xale yi dañuy am douze far ku nekk di leen jox nangam nangam ñëwal ci suñu pël ba tey ji soo amee waaw ca laa jëm si mm. tey soo amee jëkkër sa jëkkër léegi yaa ngi doon am cinq millions par mois 4 millions par mois yaa ngi koy am di am li nga bëgg yëpp nga koy am doo doo dugg doo dugg ci kaari taxi ngay dugg wala ñu jëndal oto wala ñu lay jël si tout le temps mm. ñu takk la loolu lépp amatoo ko léegi nag loolu nag su ko defee nag da ngay am problème du amee jëkkër benn góor boobu dootu la mën a satisfaire mmh. financièrement mmh. Mmh. dootu la mën a satisfaire sexuellement su léegi nag su fekkee mënoon ñaari satisfaction yooyu yëpp amoo ko mooy waral tey jii ngay ngay dawal ci sa jëkkër ji bëgg continuer da ngay am na ñoo xam dañuy téye seen jëkkër bi sax continuer seen mbaraan mooy waral naan maanaam dañuy sàlloo sàlloo jëkkër ji waaw sama càmmañ nga léegi ah sama càmmañ nga sama jëkkër ji de loxoom jotul gën a gënaawam dama bëgg nga jàppale ma ci benn cent mille par yooyu noonu càmmañ bi tam daa dee déplacé mbir mi daa dee du la jox xaalis yem ca mais mu boole ca leneen du du waaw loolu la du la ci jox xaalis ba yem ca da nga da seet jigéen ñi yenn jigéen dañoo war a doyloo seen salaire u jëkkër yi ak yam ci seen am amu jëkkër yi bu baax kii mi ngi may wax a xuppal ba waaw dafa bu nekkoon liberté 6 ndakaaru fi xale yi jigéen mhm. daan fa dem mu leen defal ay fas ñaari fas la lay defal danaan puisque ah, sama question ba ngay tontu la doon wax ah. puisque nga nekk nit ñu ñuul ñoo fi bari dalay dalay wax indil wëñ bu ñuul nga indi turu waa ak turu yaayam moo fas ko def ko naka ne la takk ko sa ndigg ni la ndaw si fexe fexeel ba waaj ji laal teg loxoom ci sa ndigg mhm. su la su xee ba lëngale nii ci digg li xoolal dalay topp wala ñu takk la ko fii ñu takk ko fii wala mu jox la loo xam da nga raxas sa loxo yi de di nuyu xale yi jigéen pël baa ngi woon fii. xale jigéen ak xale góor wala. waaw góor da koy defal góor ñi góor ñi ngomb la leen doon defaral ngomb. boo xam ne nga naan Eva Tra na nga naan. daañu daañu ko collecté doo jël Makura Diassé wala. <laughs> wala Fatou Diop Fatou Diop Kilmaxa. nga ne naka kii Makura Diassé wala. Mimi Traoré mii may dem di ko seeti. ah déet <laughs> yàlla bu ma yàlla musal ci moom. mimi dee la de génne ci mimi. daaj koy teg ne dem jàkkaarloog mimi. loo ko wax dalay toog loo ko wax mu toog bu dee 500 millions la. mu xoolal xanaa mu bañ ko yor laaj ko lu mu yor. xalaas. laaj ko puis danaan la bër bi dalee expliquer mais wél bi ñu ci defee émission ba dem fa man maa fa dem dafa xëy si xëy suba toxu am na yeneen yeneen wëññu ñetti wëñ yu mu lay defal boo xam ne boo xoog danaan la nit ko xonk am nit ku weex ak nit ku ñuul. li tax nag doxkat dama ko yërëm xam ngeen li tax ma yërëm doxkat. Mhm. dana dox dox dox dugg ci lu mu warta dugg. mais am na fi yoo xam ne tey ñu ngi topp xale yi jaay seen bopp di fa jëlee musiba. di ko yóbbuwaat seen biir ah kër. ah oui mais leen fa bàyyi est-ce que xam nañ lan la. Mhm. mais nag xam nga ki reer tëdd Eva dafay wallu ki reer doxi. Mhm. gis nga boo demee ba yàlla teg la fenn fi dafa am yenn yu sew sewaan waratoo ci dugg. te xale jigéen yi am na ci ñoo xam ne demee wuñoo ko neen. ndax fas yooyu ki ko def ci ndiggam wala mu def ko ci loxoom ñëw nuyu la mhm. mais kooku boo xasee ba tàpp ndiggam di nga ko topp par force fekk muy jaay boppam nga roñee fa musiba yóbbu sa kër booru xaw ma ñàkk ko rob ñàkk ko rob xaw ma mbambiloo côté yooyu la pël bi fa fa la nekk fa la tuxu mhm. dem naa ba gis ko toog moom wax ak moom mu dénk la ay mbir non mu expliqué ma ay affaire mais bi ma fa demaatee di ko seet dañ ne ma dem na toxu na parce que de affaire bi ni mu siiwee noonu ci rajo bi. lam ca doon laaj a bariwul 16500. voilà 16500 nga koy jox mu defal loolu. mais xale yi jigéen ñi den xale yi jigéen dañ dem di am na ñëw di ko verser di ko jox di góor a ngi topp jigéen ñi bàyyi fa jabaram di yenn saa yi duñ ko tay de gars yi xale yi jigéen dañoo am ci mikaay sooy mbaraan da ngay am cimikaay ci kenn dooy baan mais laa jëm ba koo mbaraan mm. ah mm. da ngay préparer sa bopp man boobu ba léegi maa ngi wóor ko ma mbaraan man man man waaw léegi boo préparé sa bopp dem fekk ndooy baan ba leen dene Balla Gaye nag fooy jaar man xale yi dañ maa ñëwut a mbaraan sax man dama bëgg ko mbaraan gisum ne wax ko mais mënuñ wax naa ko sonn mais ñëwuñu xaw ma dañoo ragal bari comme yow leen daal ma ñu ngi ñu ngi ziyaara bu baax a baax kenn ñu ngi dem ba Mbambi Bambilor bi mu wax euh, dugg ca ëttu ëtti Thierno Amadou Ba macha allah Seydi Bapulo ñu ngi koy ziyaara ziyaara njabootam yëpp àdduna nag nii la mhm. Adja Linguère bés bu ne nga dégg ba doyal su kon man bu ma neexee léegi dem ne mami Linguère daal nan ma ko defal nangam euh, jël fas rek fas loo am jox ma waaye nag billaay dafa amutug mujj dafa amutuk mucc ndax xam nga lu tax. li tax li la gàllaaj may gàllaaj dina la ko xañ. Oh. te nañu moytu doom joo xamul sër bu ñu ko bootee. am na ñoo xam ne keroog ba nga jógee ngir fasi leen nga tàqali ko sa sago ba illaa yow mi diini am na ñoo xam ne keroog ba nga jógee am yéeney dem et jëm ca ñoom rek mm. oto ba nga dugg du yegg fa nga jëm nañu moytu parce que am na ñoo xamante ne nii yoruñu gàllaaj yoruñu leneen mm. waaye rab ba ñu àndal a diis am na ñoo xam ne seen boppa a fees rab ba ñu àndal a diis man maa ngi toog nii di wax ak yow sama rab a ngi toog sama wet. waaw waaw on valide ñun bëgg nañ mhm. nanu sàmmaale. boîte boîte bi ma la doon wax France. macha allah macha allah. Pigalle Pigalle. Pigalle soo fa demee di nga gis lii ñuy wax yëpp la tudd ca Paris. Paris mm-hmm. da nga fay gis africain yi du sénégalais mais africain yi nga fay gis. Mm-hmm. muy góor muy jigéen góor jigéen yaa ngay lëmbe fee. Mm-hmm. Euh, ñiy jaay seen bopp jigéen ñi ñamit da ngay la nga la nga fee foofu moom amul amul laa lu neex waaye def la. dëgg la te foofu noonu foofu kenn kenn mun ci dara ensemble bi bi ñuy préparé thème bi yabal naa sama benn xarit ko demal nga defal ma foofu reportage. ca mais bon moom ca xam naa dafa amul accès wala ñemewu faa dugg. Mhm. nee na ma foofu wax dëgg yàlla man ñemewu ma faa dugg waaw parce que su fekkee euh, la ñuy dund dundoo ko doo fa mhm. ñemee dugg. Mhm. soo la ñuy dund dundoo. et puis euh, damay wax parents yi su seen doom yi nekkee bitim réew. di liggéey na leen gëstu lañ fay liggéey lan la mm-hmm. lañ fay def lan la les jeunes fii laa wax moom moo tax ma wax jeune fille soo ko mënee léeg-léeg nga dem xool léeg-léeg waaw soo ko mënee nga wala oubien nga ut ko nekk foofu koo xam ne dina lay xoolal sa doom dina ko gëstu ndaxte sa jab sa doom dina nekk fii baax lool mm-hmm. mu dem ba fële ñu détourné ñu détourné ko dafay am xam nga ñu détourné ko ñu détourné ko mu nekk ci yoo xam ne sawaay ku la ni woon sa doom mi ngi def lii moo moo xam doom bu góor bi mm-hmm. moo xam doom bu jigéen bi ndaw soo demee fa fa fa fa train yi da jaar mm-hmm. ca gaar ya soo fa demee da fay gis ay nit ñu ñuul nga fay gis ñu noonu ñoo xam ne dangay dégg nit ki di wax wolof mu leex leer ni kii dootut ñëwati Sénégal kii c'est sànku na bu nu waxee ci prostitution bi fii ci Ndakaaru ci senegal rawatina itam li nekk bitim réew ndax léeg-léeg da ngay toog ñu ne la ay soxna awa ay mami ay ndoy baan li am ci dëkk bi ñun sax dañuy ruus ne ñun ay sénégalais lañu. Mhm. loolu dafay dee am. ku dem Amérique da nga ko gis ku dem Maroc di nga ko gis. ku dem France foo mën dem. Euh, da nga koy gis waaye nag euh, dañuy ñaan yàlla waxtaan wi nga xam ne ñu ngi koy waxtaan mhm. ni ma ko xem euh, ndoy baan moo am lu bare loo xam ne daal soppi na ko wax naa ko mag ma nga xam ne dafa peese boppam xam boppam xam tolluwaayam ah. dem di def mbiram kooku mën nañ koo bàyyi mu dem mhm. mais xale bi nga xam ne mi ngi soog a tàmmali addunaam kooku la ñuy ñaan yàlla mu bañ a dugg ci yenn yi ba ci enlisé wu bay continuer bay dugg bay dem ca ca mhm. bout du tunnel parents yi la fu a arrêté seetaan so doom a ngi teg doon élève di jëf di def BFEM mhm. wala muy def terminal muy teg ay greffage bu quatre cent mille yoo ko joxul yoo joxul muy jàngi nga ci teg sa bët mhm. muy sol ay o ak ay dàll yoo xam ne yow yow leeram ni kii lii baayam jënd ko sa yaay yooyu et ay complice la ñu ak ak seen yaay yi sa yaay mère bi day nekk ci kër gi xam ne doomam jii li mu nekkee jaadul mu koy ndëbb paa bi xale bi day xëy suba ëmb mère bi xamoon na ni sama doom jii léegi mu ëmb wala mu ngi ci li muy def li muy def daal maire bi xam na ko. Mhm. mais pas avec dul yeeg dara day jékki-jékki rek ñu ñu ëmb. ëmb noonu. c' est ah parce que euh, danga nga da ba gën nga parents yi ci boppam amul ay retraité ak yooyu bàyyil toog ci ruq rek bàyyi sa doom bu jigéen bàyyi kook yaayam non non non il faut ngay vérifier. soo amee loo war a régler nga régler ko soo ci waree xëpp kaani nga xëpp ci kaani ba mu saf bu baax fii Sénégal la du ñu ay tubaab. amul ay majeur laaj yu kenn xamul danga koy teg ci yoon fii sax kilifa du fi majeur da ngay nekk kilifa nekk ci bërëb bu kawe sa baay bu ne allo salaamaaleykum wuy si ma 17h 17h pile nga taxaw sa kanam papa gis nga sa doom dina la jooyloo bu Youssou Ndour sa doom dina la jooyloo sa doom soo ko yarul mu jooyloo la mm, mbaa mu teg la gàcce fii ci dëkk da lay teg gàcce da ngay juddu ba tool ba am cinquante ans mu am sa sa life musul am benn gàq-gàq ah, nga am sa benn doom mu xam li ngay tekki ci réew mi wala li nga mu xam li ngay tekki ci quartier bi mu xam li ngay tekki ci famille bi mu tëb bëgg laa teg gàcce ah, teg la gàcce koo xam ne yow Sénégal dootoo fi dootoo fi am dara te yow defoo de mhm. ñëpp dañ la dañ naan ay waay xoola doomu diw ja dëgg la xoolal ndax doomu diw boobu ma doon demoon sali doon ko jaay ah, boppam ma dem di ko corriger day jaay boppam mu déglu ba pare mun ma sa yoon nekku ci de bu ma woowate mais Ndoye Bane li may wax xëy na mami sama xalaat la dañuy tàggatoo mm-hmm. euh, jarul itam nit di am arrêt cardiaque ndax doomam dee man boo yàqee sa àdduna dëgg du ma du ma nangu nga yóbbaale ma ci sa biir kàmb xam nga Eva xam nga Eva ci gën a métti affaire bi su fekkoon day yem ci moom rek moom rek du grave xam nga ñun ñi ban nattu lañ am tey ban nattu lañu am man tey kuy wax caat jóob doo ne doo ne caat jóob ndax boo ne caat jóob wala nga ne xujjale mën nañ ko yeex a xam dëgg mais boo ne rakki mame ja dëgg la ñu ne tekk déglu dëgg la sa étiquette bii nekk ci moom sous couvert dëgg la moo foor waaye ndokkee yàlla ba ma moomee sama étiquette te moom moomoo ko duma la ko waj dama la koy teppil tey jii tey jii sa ah sa chauffeur bi da ngay dégg ñu naan diw bàyyee ma def nàngam diw ndaye ma def nàngam diw bàjjee na ma def nàngam yow diw yaa sonn mais bul fàtte ne yow yaay diw góorgóorlu ci li nga que ka xam ne def na ala kulli xaal bu nu koy wax dinañ la tudd mais yow fexeel yàlla baaxal la tabaarakàlla ma yàlla nu yàlla musal ma ne ko yow man ngay dawala Miyandu nee na bu yàggee man la affaire indiscipline boo def ci télé bi moo xam duñ la tudd yow de danaa chauffeur ndooy ba ngay def say toj toj man fekkiwu ma yëgu ma tinu mm. gisoo TFM employé bu fi def tem tem ñu ni la télé de Youssou Ndour wala xawma lan yu fekk yow ba ngay def tey tot tot Youssou Ndour yëgul sous fekkiwu la néewu la nga def nangam ah, ah. te da ngay def benn tontot ñu ni la télé de Youssou Ndour wala un employé de Youssou Ndour lu ci yoonu Youssou Ndour léegi nag chauffeur ba sama si baax si joxe sànq rek voilà na benn animatrice ah, ci biir animatrice ay ca c'est ça loolu moo ci kii sa kii bi rafet na yére bi rafet na koy nuyu ñoom day derviche madame derviche madame <laughs> madame Dessuire sëñ bi Dervis ñu ngi koy ziar sunu yaay jooju ak madame Juma Asi Kase. Uh-huh. ñu ngi koy ziar baax wax Maimouna Bo. nekk fële ca États-Unis ñu ngi koy ziar baax ak ak ak Fili. Uh-huh. Euh, madame Ndoye nekk fole ca France ak euh, waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar. Uh-huh. ñetti bitim réew gendarme yaak waa consulat ba ak ambassadeur ba ñëpp ñu ngi leen di ziar. dama leen namm temps yi damay bëgg a demaat France niru euh, ku min ku la France di leen béggee bu baax a baax di nuyu Macron ñëpp waaye. Ah, dégg naa Macron ami personnel de Ndoye Bane. wala euh, euh, Mami Linguère. di nuyu Ara Badiane Adja Ara Badiane moo nekkoon sama njaatige foofu. ay de bu fekkente ne ma ngay travailler. Hmm. bu liggéeyul nag na bàyyi ña daje France ña daje France xam nañ seen bopp na Macron jóg ci yéen bala ngeen a toj réew ma. <laughs> delluwaat nag di tàgguwaat ñëpp di nuyu seexu yàlla yooyu Adama Elodie Awo Pilo. maa ngi leen di jox seen wàccuwaay waaye ña ngeen ña ngeen taseel France ñëpp jox naa leen seen wàccuwaay ñoom itam. di waxaat soxna Kiné Mbacke moom Serigne Afia Mbacke di ko wax ne dundal dundal ba énervé sa barke maam Serigne Fallou ki la yóbbante loolu mooy njóogu aafiya sama góoru bopp moo la yóbbante loolu delluwaat di waxaat na ñi ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp yaruwuñu bay yare yeewuñu bay yeete waaye comme dañ leen fee teewal moo tax yéen bi diis ci ñun ki jaar ci yére bi mooy Abib Ndiaye mi ngi ci 77 151 56 27 bopp bi nag tey du ma gërëm kenn ndax maa coiffé sama bopp man xale bu baax bu am jom bi sama yaay nee na démb ba mu ko déggee da doon raam. jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi Evatra mi ngi gërëm bu baax a baax euh, soxna Ndeye Ami borom Fatoumata coiffure pour les belles coiffures ma nga nekk ci 677 648 56 77. 648 56 waaye nag képp koo xam ne rek dem nga ca Maroc da ngay daw gaaw dem seeti waa Elodie coiffure ndax ca Maroc ña ngay def coiffure yu rafet macha allah ak ay tissage yu baax finition yu baax moo am solo lool Ada Elodie ñu ngi lay foon fii ci émission wareef du ñu fàtte awa itam sunu xaritu bopp boobu sunu njëkkee di leen wax ne lii moo nekkoon seen thème tey wax dëgg yàlla waa dend di gamboul aussi euh, mami bu ngeen bëggee togg dend ku ci mel ni Mia bëgg di neex dafay dem dend di gàmbul ñu ngi fii rek ca ca Sicap macha allah boo demee ca ca Petit Ndoy dana la wax bërëb bi fan la macha allah kon bokk équipe bi nga xam ne mooy équipe technique wareef te miyaanduwul jiite ko ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di ñaan daal lépp loo xam ne waxtaan nañ ko fi ci wàllu prostitution yal na loo xam ne yal na doon loo xam ne wax dëgg yàlla dafay indi njëriñ ndax waxtaan loolu rek lañ koy doyee jële ca njëriñ am yàlla may ñu dégg ak topp ba ñu di kat fi suba incha allah di leen balu àq bu baax a baax ne léegi saay ci biir wax nit dana wax ba wax lu keneen soppul bu nu dalee daal wax dëgg yàlla ngi na ngeen nu baal ak la ca baax yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi ba suba bu soobee suñu borom.